jàpp ni jub jubal jubanti bi moo ko waral ak ay contrat de partenariat yoo xamante ne nit ñi xamuñu ko dañ koy dégg loo ñu ci mën a indil ci lu leer. waaw euh, li may njëkk a préciser. mooy <coughs> Sénégal foog nañ ni fépp am ay cow yu ndaw. Mm-hmm. li ko waral mooy ñi nga xam ne ñoom la ñu féetale wax ñoom ñoo moomee jàkkaarloo ak askanu Sénégal di wax ñoom. Mm-hmm. ñooñu pour la

Macky Sall la parce que booba mu ngi bëggal askanu Sénégal man ne kon man suma nango fété ak ñun suñu nango fété xol li nga xamné suñu jarñu bop rek la dañuy and ak nguur gi. moy mhm. dalay jox ba nga doyal. ña nga xamné ñoy askanu ñom ñoy nek dans des problèmes waaye du yow journaliste. Mhm. mais ku bëgg changement ku bëgg li ñu am ci réew mi ñëpp mën ko bok da ngay and ak ño xam dañuy and ak jubal ak jubanti loolu mo waral. te jii ñii bu ñu fekkee ne dañoo ñëw jël nguur gi ne nañuy redresser. Hmm. ay toor dañuy xool la nga xam ne demul jubuloon nekkuloon yoon ay ger ak ay jënd wala yenn yi wala njublan ñun dañ ko fii dindi. Hmm. te demee ko ni kii wu ñu négocier wu ñoom dañ dañ ko fii dindi parce que li ñuy wax tey te mu indi coow li yëpp. Hmm. mais moo nekk dans tous les secteurs est-ce que xam nga ni entreprise yu bari. dañu am lu ñu wax tiers détenteur mooy ñu bloqué seen compte yi parce que dafa am lu ñu war fay impôt defuñu d'accord la même chose si avocat yi mhm. la même chose si entreprise yi puisque journaliste yi ñun ay entreprise lañ yor mais c'est tout à fait normal bu fekkee ne am na alal joo xam dañu ko war a fay réew mi dañ ko war a delloo réew mi defuñu ko ñu bloqué leen donc yooyu bokk na ci lu indi coow li comme ñi nga xam ne ñoo féetee wax ji mhm. ñoom lañ ko def moo tax coow lu bari def nañ ko avocat yi mais kenn déggu leen def nañ ko borom entreprise yi

Bassirou Diomaye fay ak ñoom Waly Diouf Bodian ak ak euh, seen ñi ñu àndal. ci mm-hmm. nguur gi ci askan woowu lañ ko jëlee set parmi les sept cent personnes yu ñu wàññi amaana bu ma ko yemalee si ñoom. am na mm-hmm. ñu ci bare ñoo xam ne ñoom la ñu votel ñoom la ñu woteel léegi. Mm-hmm. dafa fekk ku ñu dénk dara li boo ñëwee li ngay njëkk a def mooy càmbar lan laa am lan moo fi nekk. lan laa bëgg a def. loolu si le ba koo jox ku ne nga jox ko alal jigéen boo ko joxoon xaalis wala koo mën a jox xaalis nga demal nga duggi day xool ñaata la yor ak lan la mën a jënd ñoom dañoo ñëw ñu fekk benn situation ci réew mi bu leen fàtte ni président Macky Sall ak gay gaayam bi ñu doon dem. Mhm. dañu créer carrément sabotage loolu lañ koy tuddee. Mhm. parce que mënuloo fekk lu mel ni RTS waxoon luñ ko fi ci plateau yi yéen a ngi koy fàttaliku. Mhm. ñu wax ni nu koy rek yokkal gars yi xaalis bu bëri nañ ko fay salaire recruter ñu bare dugal leen defal leen contrat bu ko defee boo leen naree dàq fii coow lay bari mhm. ñu xëy yokk personnel ba nga xam ne ñoo xam ne budget bi attanu ko ñu bàyyi leen parce que leer leen nii dañ leen di déstabiliser. Mhm. bu fekkee ne la même chose lañ def poor c'est tout à normal parce que port sénégalais yi kaas nañu jamono yëfa Cheikh Kanté nekkoon. DG Port. Mhm. wax nañu ni dafa jël ay ay ay ay booyam wala base militant am ñu bëri mu jël mu recruté diggante Cheikh Kanté keneen ki ko fa remplacé bu fekkee ne juumuma moo doon. Euh, mhm. euh, bon tur bi dina ñëw kooku bi mu fa jógee Mountaga euh, moo ko moo ko remplacé te mu jóge woon Apix. Mhm. moom it kenn ku ne il faut nga indi say nit. léegi nag ñii nga xam te ñooñu ñëpp ay militants APR lañu mais kenn ku ne ci sa base recruter nga indi lu bari bu fekkee ne kii ñëw. momit mo am esprit da fuy dugal ay nitam mais mu ñëw mu fekk ne am na pléthore mooy effectif boo xam ne moom attanu leen. li mu war def mooy déjà mu xool leen. deuxième chose certainement bu fekkee ne mënu la engagé yi ñëpp mu yóbbu leen la norme mooy mu wàññi. Mhm. mais nag wàññi dëgg la li Bécaye Mbaye wax parce que 700 personnes 700 yaakaar lañu 700 yaakaar yooyu bu ñu xëyee tey amuñu fu ñu jàpp dafay métti si ñoom. Mhm. mais réorganisation bu nekk. dafay am dafay naqar yi du neex. parce que il faut ñu il xool. Mhm. ñan la ñu mën a maintenir ñan la ñu mënul maintenir mais d' doo xëy rek parce que njaboot gi cent personnes ñu ngi ci biir njaboot gi yow dix mille nga yor mhm. ne foog nga ni yeyoowuñu wala xalaatoo ni soxla nga ci kër gi ne ñoom dem feneen. am na moo ci nekk. d' accord Marisane nga yaakaar ni Babacar tamit ce serait pas mieux comme genre salaire bi su fekkee dafa cher ñu wàññi leen salaire bi ñenn ñi liggéey. xam nga loo bëggul muy indi coow rek doo ko essayer gis nga xalaat léeg-léeg parfois wax nit ñi ñu arrêté mu gën a yomb nga wàññi seen salaire. parce que loo xam ne salaire la bi nga joxe ak kii ba pare ak kii moom dellu ci biir ci kaw ak kii moom beneen coow lay indi. Mm-hmm. mën loo xëy nga yokkal nit ñi seen salaire nga xëy un beau jour nga da leen di wàññil seen salaire. dafay waxuma mënul nekk de peut-être dina am ñoo xam ne dañu am esprit dépassement ak yooyu mën nañ ko accepter. Mm-hmm. mais pour le moment question de budget lañ nek question de est-ce que attan li est-ce que li ma yor ci moyen mën na ma permettre ma garder ñooñu légui nak dans ce cas je pense que li xew port sans que ma xam à 100% pour cent la fa xew moy la xew un peu partout comme li Ousmane Sonko ñëw ne leen yenn nit ñi euh, ni ñu ko waxee il faut ñu il faut ñu il faut ñu xam nu ñuy gérer mm-hmm. ñu ñu ñu ñu ñu xam lu ñu yor mm-hmm. ñu xol nu ñu ko mën a ak la nga xam pour ñu mën tenir en fait c'est quelque chose comme ça quoi en tout cas beaucoup de si li joy doon ay euh, groupe de personnes yo xamante ne dañ leen doon fay par journée am ñeneen ñoo maintenir ne ñoo bokk li ñuy mais dañ leen di en fait loolu moo fa xawoon ci ay groupe de personnes yo xamantene ñom ñoom ñoo jug nag euh, gis ni li Waly Diouf di euh, doxalee neexu leen ñu daal di créer ben scandale selon mom limu wax ak limu tontu néna liñ koy jiiñ ak li am c'est tout à fait le contraire mais audit bi dina continuer à la coller à wa audit mom mm-hmm. foog na ni ci ñëpp ci lépp la. audit mooy seet lan nga am lan nga la lan nga lan nga mën a lan nga xam ne ci peux te passer de ça. Mm-hmm. loolu moom ala kulli haal mu am. léegi nag li ma doon expliquer mooy bu fekkee ni euh, Cheikh nu ñu koy waxee amoon na mbooloom bu bari bu muy mm-hmm. kooku dem euh, Sadikh Bey la sama xel. Dieng Sadikh Bey Bey mu am mbooloom bu mu indi mu yokk ko wala moo xam parce que li ñu dégg tey ci euh, ci. ci Waly Diouf Bodian déggoon nañ ko bi APR gelé pouvoir bi parce que ñu bari dañ leen fekkoon ñu liggéey pour ñu wañi leen. la même chose bi nga xamné Cheikh Kanté ñëw na indalé jeunes yu bari bi mu jëlé ki bi daf fi fekk ñeneen mu din leen pour duggal ay nitam. ak ñi nekk di def journalier ainsi de suite mhm. ainsi de suite la même chose a continué jusqu' aujourd'hui mhm. mais ñun lu bëgg tay liñu yaakaar en tout cas sénégalais yu bari yu votel euh, nguru Ousmane Sonko ak euh, Bass président Bassirou Diomaye Faye moy mhm. à partir de tay doomi Sénégal yi yëpp ñu am xëy. dëgg la mënuloo jàpp ñëpp nga leen toog leen ci port ba le temps ñu xool situation poor ba te comme mënuloo jëli ñëpp nga leen jóge leen fii mais ñu xool naka la ñu mën a redresser de sorte que. kenn du taxaw ne amu fenn fu mu xëyee. moo waral ngay sànni xeer. mais nag ala kulli xaal euh, gouvernement waxuma la sax xoo gouvernement. mais képp ku ñu dénk dara. ñu ne la tey Kéwoulo yow la ñu dénk tey yow yaay directeur bi. Mhm. la ngay njëkk a def ñaata personnel ñoo fi nekk yan journaliste laa soxla. lan mo fi nek comme caméra lan mo fi nek comme auto lan mo fi nek comme vélo noonu la ñuy d'abord pour nga càmbar ci chambar bo nak so xalat ni ñi soxla guma len mën nga len ni tok len ngeen xaar. d' ça rentre dans l'ordre normal. mais est ce que Diarno aussi nga am sa entreprise euh, créer créer ay emploi ba paré euh, am ñoo xamantene ne dañuy dañ leen reconnaître comme des journaliers en fait. Mm-hmm. am ñeneen ñoo xamne dañuy ñëw ci kanamu ñooñu nga jël leen defal leen ay contrat soit CDD lay nekk wala CDI ci kaw ñooñu alors que ñi ñoo gëna maîtriser travail bi bokon na ci wa port liñ doon jooy.

Mhm. ci peintre yi bu fekkene ne ñële manutentionnaire manutentionnaire lañu même bu fekkene def nañu fi 100 ans fekkee yow la nga am ci manutentionnaire ñuy duggal ci yi wala lo soxla wut mëno leen jël. Mhm. il faut impérativement nga xol profil bi nga xamné ne loolu management. Mhm. da ngay xool lan la soxla ak nan la koy mën a ak li nga xamné mom la laa yor.

Covid bu mu ñëwee économiquement gisoon nga ni dëkk bi dafa demee woon boo. d'accord moo taxoon ñu gën a wàññi nit yi. Mhm. mais bii ci affaire favoritisme laay waxee Babacar waaw xam nga li ma la wax dama yow yaa ko tuddee favoritisme. Mhm. man dama la ne nit ki ak sa soxla. Mhm. xam nga mën nañu nekk sans stagiaire Kéwoulo. d'accord bés man ma mën a composer ak ñëpp mën a ànd ak ñëpp. kuy liggéey kuy nelaw yëpp ma ne garaawut parce que kii léeg-léeg lii ma bàyyi leen fi. moom beneen directeur boo xam ne bu ñëwee da nga ko naan résultat laa la laaj. parce que Ousmane Sonko képp ku mu fal ne la directeur général nga wala ministre li mu soxla ci yow mooy ay résultat lay xaar léegi nag quand on bu benn équipe bu bees ñëwee dafay entouré wu nit ñoo xam ne xalaat na ni am na yaakaar ni ak ñoo ñu mën a def résultat. mën nañ ko dugal ci cadre boobu sans que ñu xalaatee ko favoritisme parce que kenn ku ne ku nga xam ki nga wóolu moom ngay jël dénk ko. say yëf. Mhm. loolu c'est comme ça amul nag maa fi gën a yàgg ak maa fi gën a màgget ak maa fi mën nga gën a màgget mën nga gën a yàgg ci benn poste fekk lu ñu soxla ci jamono jooju mënuloo ko. Mhm. am na ñoo xam ne bu ñu nee euh, dans tous les domaines la dans tous les domaines. am na ñoo xam ne boo leen ne lii ñoom ñoo ci man yàgg nañ fi loolu. Mhm. mais poste yooyu am na ñeneen ñoo xam ne ñoo leen jiitu ñu ngi occupé ay contrat à durée indéterminée donc ñooñu il faut nga xaar le temps nga leen dugal ci diggante bi nag yow soxla nga leen mais ce budget bi nga am pour cont euh, manager loolu sa budget bi permettre la nga jël ñëpp ñi nga xam ne fayee nga leen fekk dans ce cas amul beneen moyen bu ci nekk lu dul nga séparé wu ak ñoom. c'est le management. alors ñu gis au delà de ça aussi euh, contrat de partenariat ci affaire euh, média yeeg yooyu. Mhm. amoon na scandale au niveau de la LONASE. Eh, bi yan scandale nga ñu mëna choro coro dama bëgg encore ngeen baña daanu ci piège bobu il n'y a pas de scandale de contrat de partenariat. la la rek. Mhm. nit ko ko sentir ko ñëmé mo lay jégué mom ngay waxtanal mom ngay andal dem fu la neex. dem fu neex. contrat de partenariat. moy mhm. lan en tout cas concernant la presse. moy mhm. structure bu